waaw li ñu gis mooy biñ ñëwee ci Mbacké seetlu nañu ni travaux stade bi avancé na bu baax defe naa ni ñun ñëpp gis nañu ni gazon bi posé nañ ko et même c'est fonctionnel mën nañ ko commencer utiliser euh, tribune bi 2500 places la nee naa d'ailleurs entrepreneur bi tribune bi moo gën a mag Lat Dior de Thiès ndax 2500 euh, quand même donc il faut le faire et je pense que Mbacké également mérite mérite li ci des rek ci euh, mën naa ni chantier bi mooy finition yi mooy finition yi donc entrepreneur bi jël na engagement pour libre chantier bi dans deux mois nee na carrelage bi moo des donc euh, finaliser donc mën naa ni pose porte yi mooy menuiserie bi ak euh, plomberie bi WC yi après vraiment vestiaire yi stade bi pare beneen bi mooy les deux plateaux on a un plateau pour le basket un autre plateau pour le handball donc yooyu moo ci des gis ngeen pour comment ça s'appelle électricité bi ak éclairage bi d' ailleurs mën naa ni Mbacké moo nekk premier stade boo xam ne dina bénéficier d'un éclairage sportif en LED te muy ay innovation yoo xam ni dugal nañ ko ci donc pour dire que simplement incha allahu rabbi su chantier bi pare le stade de Mbacké sera l'un des stades les plus fonctionnels et les plus mën naa ni modernes donc du Sénégal. nekk c'est l'occasion pour man ma féliciter donc le ministre de la fonction publique donc suñu collègue Galoba euh, nekk maire Mbacké mais également sant ko. ci diligence yi mu apporté ba li nga xam ne mooy électricité bi mu mën a disponible ci ci euh, mën naa ci stade bi te loolu mooy euh, mën naa ni collaboration ak subsidiarité entre l' état et local loolu joué na bu baax ma ko ci félicité ñu xam ni seen maire ministre de la fonction publique suñ collègue Gallo Ba li mu nekk ci gouvernement bi yëpp yàlla suturaal ñu yenn saa yi man moom ñooy toog en conseil des ministres du cessé chaque conseil mu ne monsieur le ministre foo toll ci document yi may indil président régulièrement dama koy wan mu xam fi ñu toll ci stade Mbacké mais également ñaax na ma lu dul benn du ñaar pour ñu ñëw fii ci Mbacké visiter chantier bi rassurer le populations surtout la jeunesse moo tax ma leen bëgg a témoigner ni leen seen maire seen euh, ministre mu ngi suivre chantier bi mu ngi ma ciy ñaax mais également président de la république dafa ñu jox ay ndigal daf ñu jox instruction pour que ministre bu nekk projet ak programme yi ne sa ministère nga laxasaayu euh, pare chantier yi livrer ko population yi man nag au niveau de la du ministère de sports xam nañ ne président la république ci xalaatam ak vision mooy euh, jeunesse bi ak euh, dëkk yi dañu leen war a defal ay infrastructure moderne moo taxoon mu engagé mën naa ni ay stade dans tous les presque départements am na seize projet yoo xam ne man fekk naa ko fa yoo xam ni commencé nañ fukki projet ak juróom benn ëpp na cinquante milliards pour defar jeunesse bi ay infrastructure moderne te loolu mën naa ni Mbàkke daf ci bokkoon tey li ñu gis wane na ni travail bi mën naa liggéey bi presque li ci des bëreetul entreprise bi jël na engagement ni fii ñaari weer dina pare travaux yëpp livré ko la jeunesse stade bi nga xam ni dina nekk un bijou ci Sénégal ndax defe naa ni à part euh, Léopold Sédar Senghor stade Abdoulaye Wade moom moo ne ci kaw. mën naa ni sax stade du Mbacké soo moytuwul mooy jiitu stade du Thiès Lat ndax mën naa ni capacité bi tribune bi am 2500 places stade de Lat Dior tribune couverte bi amagu ko. pour dire simplement que ak yeneen commodité yi ak système d'éclairage bi ngeen gis ni mu ni mu moderne ak ak euh, mun naa ne mode LED bi ak euh, innovation yi ci nekk dina nekk stade yi gën a fonctionnel ci Sénégal te loolu defe naa ni président de la République moo ko yéene wa Mbacké defal leen ko te waa Mbacké aussi jeunesse bi mérite nañ oui les norme internationales ci éclairage beeg defe naa ni ci tribune bi mais également ci pelouse bi loolu la ñu respecté ndax ci kay de loolu lañ ci dugaloon entreprise bi également loolu la respecté mais également dinañu gën a di yokk ndax nit moom soo nee ci dara da ngay gën toujours di xool nan ngay gën a améliorer ya euh, renforcer gën mu gën a baax. waaw stade de Bambey mun naa ne mu ngi avancé bu baax euh, euh, gazon synthétique bi xam nga livré nañ ko donc li ci des bëreetul stade de Diourbel xam nga dafa bokk ci programme bi nga xam ni gouvernement du Sénégal daf ko seq ak gouvernement Chine ñu am 40 milliards yoo xam ni dañ ko dugal. vingt milliards yi dañ koy dugal dañ ko dugal Léopold Sédar Senghor beneen milliards yi Diourbel def ci bokk ci bénéficiaires yi Diourbel la Kaolack ak Ziguinchor donc fan yi di ñëw dinañ ñëw tàmbali liggéey bi Diourbel dañ doon xaar nawetaan yi pare te lu ñuy def tamit dañ koy waxtaane ak les acteurs mooy ñi nga xam ne ñoo yor nawetaan yi ñor euh, mën naa ni football bi ak ñi nga xam ñooy pratiquer di bénéficier wu ci infrastructure bi. voilà tey bëgg mooy stade bi gaaw pare loolu mooy nekk yittey waa xale yi surtout te it jàpp naa ne président président de na yitteem. ndax it saa su ne day ñaax la ministre des sports ci ci ci ci stade Mbacké ak yenn stade ñu gaaw ñu gaaw ko finaliser te it jàpp naa ne ministre des sports mu ngi ci def ay jëw yu am solo teewaayam fii rek firndeel ak ci yéene bi am pour que mu gaaw pare également ñu gi remercier entreprise pour effort yi mu def parce que jëf def na ay jéego pour que stade bi méngoo ak jamono d' abord la tribune tribune 2500 places ensuite euh, projecteur yi LED la. Euh, pelouse bi pelouse bu baax la mën na def quinze ans jëm vingt ans au moins si si elle bien entretenue donc véritablement jàpp na daal tey ñu ngi am yaakaar que dans les prochains mois euh, stade bi dina gaaw pare président République ñëw inauguré ko ñëw en nekk en communion avec la jeunesse de la jeunesse département gestion bi nag ñu ngi ciy déjà commencé liggéey parce que duñu ñu a xool lu ñu koy lu ñu koy lijjantee pour pour gérer loolu am nañ ci ay ay gis-gis am nañ ci également xalaat mais va falloir que nu waxtaan ci ak waa ak conseil municipal pour xool en tout li mooy ci wàllu courant bi jël nañ matukaay yëpp ak waa Sénélec en relation avec entreprise bi dañu fexe ba Sénélec ba courant bi ñëw boo defee ñu mën a def test yi tester projecteurs yi tester tout tout ce qui est électricité pour véritablement que ñu nekk aux pour que ñu mën a gaaw pare liggéey bi